personnes yi nekk derrière des claviers la pour insulter les gens ragaluma ko man réew mi laa moo ma ñor bu réew mi moo tax ma jël décision bi te te nag bu jafe woon ba jafe ñooñu du ñu jël responsabilité yooyu fii ñu toll nii ñu bari ñi ngi xalaat ëllëg assemblée bloquée kenn du mën a élire président kenn du mën a def dara mais bu boobaa président de la république mooy jël ordonnance il gouverne par ordonnance te loolu c'est un recul démocratique l'assemblée doit jouer le contre le contre pouvoir mais malheureusement dafa am ñoo xam ni à travers leur réflexion dans la presse vraiment te nekk ay mag te réew nag bu tollee foofu mag ñi dañu war a ñëw nag wax xale yi parce que xale yi amaguñu expérience boobu seen bëgg-bëgg rek la jiital defe ni loolu la fekk du loolu loolu mooy yàq réew mi ëllëg kon nag euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk am na ñu naan du côté du peuple quel est le côté du peuple le peuple qui a donné 82 députés à Macky Sall et ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple man depuis longtemps bi ma amee vingt cinq ans ba tey je suis à côté du peuple lu ma am bokk ak peuple sénégalais quel peuple ñi ngi toog seeni kër li ñu am di ko séddoo ak seen njaboot dañu bàyyi nit que ça suffit xam nga réew mi depuis quelque temps et pris en otage par quelques personnes loolu nag c'est inacceptable ces personnes là qui ont trompé une partie de la jeunesse sénégalaise je pense que aujourd'hui il est temps d'arrêter réew mi ñoo ko bokk parce que ñooñu même bu leen yàlla joxoon réew mi ci yenn condition yi ils auraient des difficultés pour gouverner réew boo ko bëggee bëgg ko jiite da nga koy bëggal jàmm boo nekkee président am jàmm loolu mooy li ma bëggoon a wax maa ngi gërëm ñëpp